13 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. waaw maa leen di fay waa maye ñu ngi leen di siyaar di leen bëggee baax a baax di leen ne dal leen jàmm fii ci biir Grand Yoff bi ngeen ñëwee fekk ñu ñuy entraîné pare nañu donc euh, toog di waxtaan ak yéen. di leen sant bu baax a baax ci seen teewaay ak seen disponibilité di wax suñu mbokk yëpp nañ ci nañu jàppale ñaanal ñu la vingt 27 am nañu combat incha yàlla defal ñu ndam bu rëy ñu ndi ñëw Grand Yoff feete ko biir Grand Yoff vive Grand Yoff vive Sénégal. waaw euh, combat bi ni mu taxawee rek euh, donc ci ay live euh, Instagram bu ñu doon waxtaan. di waxtaan wax ji coow li mu dem ba combat bi taxaw après bi ñu demee ay deux trois quatre jours ci la combat bi taxaw parce que man sama combat taxawal ko yomb na man moom euh, naa am adversaire bu ma ñamee rek nga fay ma lu ko jar après dañuy bëri quoi bu ñu ci bu ci staff bi waxtaanee après dañuy bëri c'est fini ah noonu la taxawee direct. no combat bi ma dalee bëri ba léegi comme sama combat ma nag moom nag moo gën a néew luñ ma fay wax dëgg yàlla. billaahi wallaahi moo gën a néew liñ ma fay. Hmm. parce que euh, combat bi may indi rek liñ ma fay mu mu triplé mën na ko ñetti yoon xaw ma ñeenti yoon. sama combat ak Baye Mandione rek liñ ma fay euh, tëgg na sama combat mën ak mbay Gouy Gui ñetti yoon donc kon moom day bu waxee loolu day wax rek parce que du xaalis quoi parce que man ak moom sama combat du xaalis du xaalis moo ñu boole ko parce que dama bëggul leeral bëgg a xamal ni sénégalais man li nekkoon ci man ba tey mi ngi ci te incha allahu rabbi vingt 27 incha allah dinaa ko wan ni lim lim ba léegi li eh, loolu noonu mi ngi fi ba tey bougé wul. wax dëgg yàlla nag man benn làmb musuma ci mer suma ma juumul foog naa benn làmb laa musa dem ak mer mooy sama combat man ak Siteu laa mus a dem ak mer yeneen combat yi Siteu yëpp musuma dem làmb di dem ak mer te boobu nu mu fa demee la woon quoi. waaw mais xam nga nit moom euh, loo xam-xam athlète bi moo la gën a xam yaramam Balla li ko war rek mooy mu demaat entraîner parce que man bi nga bëgg a bi ñu bugg bëggoon commencé souligner débat boobu nde dama ni la woon na nañ bàyyi ba mu ba mu bëreeg bombardier ba pare mais bombardier moo nekk mbër boo xamante ni dafa naqaree canaliser parce que de un du ragal de deux day song te néewul kattan aussi donc euh, bala li mu bëree foofu lépp erreur la. erreur la bëreeg moom parce que Bombardier doo doo doo jàppanteeg moom di jaayanteeg moom doole da ngay dóor mu fayu nga jooyloo moom jàpp ko bëri daan ko kese loolu mooy bëreeg Bombardier mais boo buggee taxaw ne kaa ñu jaayante doole dalay lay ba pare te da daan kooku bul sax sonn. waaw hmm. ni mu waxee c'est normal parce que bi mu bëree daan xam nga waa Kambale dañu def sorti wax lu leen neex quoi. Euh, du ñu bëreeg moom du ñu bëreeg moom na la nii na naa donc Boy Niang tamit euh, pour influencer tamit euh, waa ka waa côté Balla Gaye mu ne leen moom tamit xam comme que bala tamit jëlee na fa defet moom tamit mu ne leen du ma bu ñu bëreewul du bëre donc làmb daf leen boole quoi en fait parce que ñoom ñaar ñëpp dañu dañu perte seen seen journée donc làmb boole na leen pour ñu bëre ñoom ñaar amul amul. Balla amul beneen nit bu mu war a bëreel actuellement bu dul euh, Boy Niang Boy Niang amul keneen ku mu war a bëreel actuellement ku dul la parce que Balla ganaay mu bu mu jaaree ci ganaay yëpp dafa jële échec donc day def day def day rétrogradé jël Boy Niang après prouver après yéeg continuer loolu mooy yoonu làmb quoi. waaw hmm. boobu nag moom revanche bu neex la mais xam nga euh, yàlla dafa ni ëmb sama nit la ëmb sama kañ la mais. du yomb abi du de no Kéba yow gis nga nit euh, sport amul magal sport amul âge euh, Bombardier wax na leen ko wax répété na leen ko nee na leen moom hygiène bu baax la yore te day entraîné donc mag mu yor hygiène bu baax di entraîné ba pare xam ses responsabilité bokkul ak xale boo xamante ni day entraîné xamul ses responsabilités bokkul te ñoom ñaar ñëpp ay mature lañu te ay majeur lañu donc am foofu âge du fa feeñ quoi en fait âge du fa feeñ âge mënu fa feeñ parce que bu âge bu doon feeñ day feeñ ci premier combat bombardier ak balagay Gaye doon mais Eumeu Sène moom ak bombardier moom ak euh, balagay te âge feeñu fa donc munul feeñ foofu quoi du benn sax euh, boo xul parce que boo xoolee boo seetee ba seet Eumeu Sène mook bombardier parce que ay moroom lañu de ay moroom lañ de ñoom ñaar yee te bombardier yow tamit kooku déggoo li Pape Sarr wax xanaa <laughs> groupe nit. <laughs> non mais loolu tamit c'est normal c'est normal xam nga nit moom mooy mooy li euh, booy ñaar def Balla Gaye rek xale moom bu jëlee mag xale bi mooy gën a bëri wax comme Zarko ak Mbaye Guy gi xale bi mooy gën a bëri wax c'est normal parce que da ngay am da ngay ànd ak euh, de confiance quoi. kooku c'est normal mais tamit loolu lépp ci làmb la quoi comprendre nga te ñun sénégalais ñu xam ni ñu xam ni làmb coow li coow yi am si diggante mbër ak mbër loolu ci làmb ji la rek kenn du ko yóbbu estade loolu du luy dem estade li dem estade mooy da ngay serein euh, préparé wu dem pour gagner comprendre nga gars yi supporters yi dañu xam ne li ñuy wax ci làmb ji yëpp ay foo la rek ay neexal la ay déconner ay déstabiliser sa mbër kese kese kese kese mais nekkul loo xamante ni day dem làmb ja loolu demul làmb ja quoi. ba Modou Lo Ama loolu ça ça ne vaut même pas la peine de le demander mooy favori Modou mooy favori loolu yow kee dem ba dégg roi des arènes jarul sax laaj kuy kuy favori. non wax dëgg yàlla nag wax dëgg yàlla man moom seen état physique xooluma ko quoi parce que aw ma jotu xool leen si duma sax seetaan seen entraînement wala dara wax dëgg yàlla no Modou mooy favori. ci bëre bi ci bërëbi ci bëre bi moom wax dëgg yàlla euh, boo xoolee ci bëre bi moom euh, cinquante cinquante lay nekk ci bëre bi moom favori munu cee am quoi si waa ci bu dee ci xeex nag moom wax dëgg yàlla euh, ay quarante soixante lay nekk Modou Lo mooy am soixante Ama am quarante si non combat boobu du am kaw no du am kaw doom kaw combat bu bari lay mujjee Sénégal yëpp nañu xam ne combat dina am xeex nag mais doom kaw bari lay mujjee. waaw mais tamit xam nga ama du ragal du ragal booy kin pii la te du tapet xam na li mu bëgg te xam na fi ko combat bi mën a yóbbu donc mm, li muy def nii rek mooy yoon te moom ci la nekk nii. Modou Lo aussi tamit li muy def moom euh, moom ci la nekk moom dem na ba ba egg au donc Ama du ko may dara moom Modou xam na loolu. xam na loolu bu baax a baax Ama du ko may dara. mais nag xam nga boo gisee nag gars yi dañuy cëfar cëfari nii xam nga signature yi yàqu xam ni saa waay waga bee fa nekkul rek. war Serigne Saliou <laughs> non mais loolu dafa am nag xam nga nit euh, bu ngeen yàggee yow am na yoo xamante ni. lu bëri yow la woon. donc euh, boo fa jógee rek après yow ci sa bopp da ngay xam ne lii nii des na. Euh, am na lu am na lu fa manqué te moom xam na ko man it xam naa ko même nit ñi ko war aussi tamit xam nañu ko parce que xam nañ euh, ce que pèse Zarco devant derrière lui quoi. importance bi si si si dëgg la. non loolu musul am <laughs> non dëgg la loolu musul am. yow gisoo gars yi naan Modou Lo eh, Ama mi ngi doon tëkk Modou Lo Mbour. Mbour maa ko tàncoon mi ko tere si. muy <laughs> daw muy daw di laaxatu si Baye Mandione <laughs> Baye Mandione taxaw daan ko taxawal fii rek ba kenn di ñëw <laughs> mais Modou Lo moom bu bëreeg Balla man maa tax man maa tax mu bëreeg Balla Gaye de parce que jour boobu bëri na ak Balla ak kii Balla Diouf je pense. ba pare daan Balla Diouf nar a ñibbi. man maa dawaat ba ci moom demoon na bay dugg ci porte Demba Diop bi dugg ci porte bi nar a dem ma dem na ko sëñ bi yow danga bëgg tekk ci làmb ji wala lan mu ne ma sii ma ne ko combat Eumeu Sène Bombardier eh, Balla Gaye demal nga sampal leen ndënd booy parcelles yi naan ma yow da dof wala yow loolu teel na ma ne ko hey yow Balla demal nga sampal leen ndënd mu xool ma ma xool ko mu xam ne kii nii li may wax dëgg la mu ndënd bi man maa ko dem jëli dem jox ko ko billaay walaay mu dem samp ma taxaw si bunt bi di ko xaar ci la bëreeg Balla Diouf daan ko. combat boobu loolu loolu noonu moo déstabiliser Balla Gaye bu Balla Gaye daan ko waaye lu ñu man yow ma man pare naa si lépp man garaaf rek man kenn intéressé tu man non naa la xamal leen man nag man dama gëm garaaf de barki Serigne Saliou dama gëm ni garaaf mooy gën ci àddina man dama ko gëm non man soxla ma benn relation man relation garaaf rek mool na barki Serigne Saliou na seq jàmm buñ ma rombee nuyu ko bu ma ko rombee nuyu bu ma nuyuwul itamit garaawul man dem ma ko nuyoo dinaa dem man garaaf rek ma intéressé man leneen ñoruma billaay wallaay billaay parce que ñun ay Baay Faal la ñun dara fokk yóbbul suñu bët daal si parce que ñi war a ñi dem ñëpp waruñoo dem ki war a dem a ngi nii jackpot baa ngi nii man kese maay dem ci MMA siggil Sénégal indil leen drapeau bu leen neexee ñu jox ma diis ko mbaam képp kuñ ma jox ma noq ko ñëw si bi may xale ba léegi dama ko def dama def dama def eh, Muay Thai def jujutsu def def eh, këmf yëpp laa def ba pare ñëw ci kan moo dóor ko ba mu toog moo rëg-rëg ci boppam moo dóor ko ba mu toog MMA billaay yow non Bombardier bokkul sama liste